sante serigne bi wax nañ ko séré won kër rek ci taxaway bu rafet bi ak yéenu jure ji ndax serigne Touba ko ne xam ne Touba moo ko gënaloon lépp ku fa masaan bàyyi ko bi ñu nekk njariñ boo boo agsee balaa wax ak kenn yow lay jëkk a waxal kon nag li nga xam ne mooy seen mandarga muy waa Touba ci kanam mooy wàccal ilahi maskani Touba abat mithla ismiha بجاه خير من عبد كن لفيك أجو جن فوق رك من يخمن أجو جن جهاية تو وين ن ننتي وسيلة تو كن لين فين دنا لا نمو كورن وخير داير بوهان أبو جن نت أدوال نت تامل دفتر تلي ما نكو دور مسجد سنغال داير يبي جنبار رك وايلي مم شين لجك كن نك من يخمن لا سرير شو بكرة وخير فلا كويتي دفعكم مسابقة كتوبة boobu dëkk mi ñàkk na ndox lool sëriñ bi comme ni ma ko waxee rek balaa ma sa wax ak kenn ki njëkk ki jóge Tuubaa yi jëkk waxal mu ne ko naka sama dëkk bu tedd ba mu ne ko Mbàkke ba dëkk baa ngi fa waaye ma ngi ñàkkum ndox lool sëriñ bi ne ko loolu dox na diir bu gàtt dana jeex mu ne ko Mbàkke xanaa loolu ku gudd fan du ko fekke <laughs> ku gudd fan loolu du ko fekke mu ne ko ku gàtt fan du fekke dara ñu teg ci ay fan mu faatu kon Serigne Touba lépp lu mu ñaan suñu borom rek lu mu tëgg bëtam la ba may ko ko mu bind ko lii nag firnde la ci loolu kon nag ni ni ko ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di seereele waxtu bu rek mooy ñaan ci Serigne Touba rek ngeen àgg fa ngeen jëm te dara bañ leen do ndax lii kat njariñul ñëpp la ñi ma nekkal ci biir oto bi wax naa leen neneen fii de ku fi jaar bu déggee ñu wax ci yeen ab safaan du ko mën a dégg boo yexee bu ma gàddu yo dóor la ko ndax loolu jëfu ko mais Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ne danaa wax ne wax ak jëf li ko wutale mooy boo yend woon wax fii ba déwén ci ci néeg bu ca su bu ca suba saa bu ëllëgee ku fa ku fa jaar du xam ne ni jaaroon na fa waaye boo doon fii ab bant rek samp ko fa ba ba téeméeri at li fi bant baa ko fa ñëw fekk ko fa kon jëf mooy mooy des lii nag jëf la kon nag yàlla na sax bu baax. ba fa ngeen jëm rek ak àgg fa. parce que suñu tubaab te xam naa moo ci amit nag. ndax moom kuy kuy xalaat da nga xam ne suñu tubaab nangu na ko. Mm-hmm. ndax la Serigne Saliou daa wax ne lu fa xolub taalib yi jëm rek. Mm-hmm. fa la bi jëm te daayira bi xolub taalib yi suñu tubaab yëpp ko nangu. julli yi bëgg lu baax sax nangu nañ ko kon nag tawfeex rek la. jëmee ko ci Cheikh Mamadou Bachir mii ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci liggéey bii day wane ne liñ koy saytuloo itteel na ko ndax njëkk ko def tey ba mu ñuy doog a tàmbali ñuy doog a tàmbali liggéey bi defoon na lii ñëw wisit sànce yi te ji it li muy xat-xat ci màggal gi waajtaay wi teewut mu bàyyiwaat ay itteem doon tey ay itte yu ba ngeen koy xaawee gan ngir ñëw ngir wisit sànce yi xool liggéey fi mu toll loolu nag day tegtale ne liggéey bi itteel na ko te bàyyi na ko xel kon sëñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax di sant mboolem waa Touba Ca Kanam gépp nag ak mboolem ñu jàpp ci liggéey bi ak wet guñ ci mën a jàppe xëy na diggam ak Cheikh Mamadou Bachir dafa demee noo xam ne mënut a yàq ay kàddu ci wax ndax ñoom ñaar manis naa wax ne ñoo bokk ñaari waajur ndax Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Abdoul Khadir ku ne xam na ni ñu demee ñoo bokk sëriñ bi soxna Awa Boussa soxna Aminta Boussa ñoo bokk sëñ Bousso bi ñoom ñaari ñu wëlbatikuwaat seen ñaari waajur yu jigéen bokk wenn waajur kon ñoo bokk ñaari waajur ñoom ñaar loolu nag xëy na jegee gi moo tax mënut a yëkkati ay kàddu di di di sant gi di ma ko yëkkatiloo Euh, donte it xëy nu itam suñu diggal sëñ bas sax na duñ ci mat seere waaye nag wa ma sëyin naa illaa bi ma naa dañuy wax rek te yàlla tax waaye leen xam te man koo seere mooy liggéey bi ñu ko dénk daal fonk na ko bàyyi na ko xel itteel na ko ba weeru safar yu daataan teew la ko tàmbali woon bàyyi ay yëpp di yendu ko sëñ Tuubaa ba guddi loolu nag bàyyi xel liggéey bi mënu ko weesu te noonu la bàyyi xel liggéey bi dëkk bépp kon ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi Touba Ca Kanam it mi ngi ciy jàpp bu baax ci wet yëpp di leen jàppale. Touba Ca Kanam du mbooloo mu jug ngir fekk lu kenn bëgg a def mu di ko def du kuy xëccoo day mbooloo mu jug ngir pas-pas ak liggéeyal sëñ Touba ku sëñ Touba ñoo yaa ngi ci biir waaye fekkuñu lu état war a def ñu koy xëccoo ñoom bëgg ko def ndax doole état du doole ab kuréel waaye nag doole sëñ Touba moo yëmut fenn tey liñ mënta ñàkk def ñun mooy liggéeyal sëñ Touba waaye xëccoo wuñu te état ni ma koy waxee dañ koo dénk Sénégal gépp fenn fu ne dara war ko fa li mu fi bu soñoon xëy na li it ittiwo gépp mu def ko waaye nag nam ko it nam ko waree Touba la ko war fa neen te mënewu ko nam ko bëgg kon Touba ci kanamit it su amee yéene lam bëgg mënu ko nam ko bëgg mëneegu ko waaye bu tàmbalee état di def moom itam muy def lam man taal bi sëñ Touba bu man di def léegi tey liñ bëgg lépp ñu am ko waaw ñu ngi fii ci euh, site bi nga xamante ni mooy 30 bi jëm saxaw ga nga xamante bi nee ni yoon yi nga xamante ne ni moom lañ ci doon def euh, tey jii ñu am taw feex goo xamante bi ne ni Eh, Serigne Abibou Fallilou dafa ànd ak eh, sëñ Cheikh eh, Bass Abdou Khader Bassirou Abdou Khader ñu ñëw pour xool liggéey bi ndax ku ne xam ne ni fi ñu toll màggal gi li ci des bareetul ñuy xool fan lañ xam ne moom fan fi la ñu toll le tawféex nag am na ci ndax fii ñu toll nii ñu ngi njëkk ci 30 bi nga xam ne mooy 30 kër ñaan jóg foofu bañ fa demee doon na loo xamante bi ne nii lañ fa gis mooy ci finition la ñu nekk incha allahu rabbi bu soobee yàlla fii ak eh, ñaari ñaari fan bu neexee yàlla ñu mën a jëfandikoo li nga xam ne moo fa nekkoon ci aw yoon bañ fa jógee it jaar nañ fi nga xamante bi ne ni mooy eh, eh, yoonu daaru yoonu daaru yit la nga xamante ne moo fa lañ fa nekk mooy lépp loo xam ne muy fondation noppi nañ ko li ci des mooy couche de base bi bu ñu paree doog di def nu mu tuddati bi couche bi la ca war a jëm yëpp yemb na te fi ñu toll ñu ngi ci te am na sax ay équipe yoo xam ne dañuy liggéey ci guddi gi. ñabi bu mii ko jiite mi ngi koy doxee. nga ñaanal ñu ñun taalibe bi yëpp ñu mën koo lu ñu mën lu mu wàq ñu suul ko ndax dab ko moom du yomb ci jub ak pësteefu nga xam ne daal nga ñaanal ñu ba lu fu jaar fu mu ñu ji ni mu jiito daal ñu mën a topp ci kawam ci pësteef bi ba li ngeen bëgg ci dëkk bi yëpp suñ borom jagleel ñu ñu ko ñu def ko ci nga ndax am ci ngërëmal sëñ Tuubaa moom daal pësteef bi eh, ndax ku ku ku yàlla dimbale la ndax ko suñ borom dimbalee mooy nit ñi gëm nañ ko wóolu nañ ko doyloo nañ ko te loolu nag du lu yomb te lépp nag luñ ko gëm ak luñ ko doyloo rek ak fuñ ko teg rek ji ay jikkoom àgg na foofu ak ñi mu àndat kon nag ndax nit ñi moom boo boo buñ la doyee rek boo waxee ñu topp la te topp nañ ko lool lool lool loolu laa koy wax dama naa ko sëñ bi man aw ma aw ma gaaw ak dimanche maanaam man nee ma defal lii rek ma def ko man bu ma toogee aw ma xalaat ma daal damaa bëgg nga ne ma Abdoulaye nga nga ne ma lii nga war a def rek ma def ko.